أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey mbokki jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala nu toll ba tey ci suura al araf ci kàttanu borom bi noo ngi jël tey ñeenti aaya aaya 159 160 161 ak 162 ñeenti aaya yu sunu boroom subhanahu wa taala di ñu jàngal ñetti mbir ñaari mbir yooyu ba ca jiitu mooy insaaful qur'an lil umam wal jamaat faqad saraxa anna fi bani israil umma qaima ala alxaq wa zalika bacd fasadi bani israil wa qabl mabcas nabi alxaatam amma bacd albisati almuhammadiya falam yabqa axad ala alxaq illa man amana bih wattaba linusxi saa'iri sorai bi shariatihi bokk na ci li ñuy jàng tey maandute téere bii di alquran lu tax danañ gis alquran taxaw di seedeel xeet wii di bani israil yàlla di ñu xamal ne am na ca ñoom mbooloo moo xam ne ñu baax lañ ndax ci dëgg lañ nekk loolu luñ ciy jàngee ñu ñuy dund diine mooy xoolal banu Israil ni ñu mel ni ñu bone ak li leen yàlla xas ci Qur'an yépp terewul yàlla mu ne am na benn mbooloo jamaa ci bani israil lañ bokk waaye ñu baax lañ ndax ci dëgg lañ nekk waaye ñoom kañ lañu baax loolu yàlla di leen seedeel ci ban jamono la woon balaa islaam ñëw yàlla ne am na mbooloo mu baax ñu nekkoon ci ñoom waaye ginnaaw ba yàlla yónnee muhammadun alayhi salaatu wasalaam amul kenn ku fi nekkati di dund dëgg lu dul nga bokk ci mbooloo seydina muhammad ak mbooloo moo mën a nekk soo fekkee bokkoo ci umma muhammad bokkoo ci mbooloo seydina muhammad ci caaxaan nga nekk da ngay foo booy dee rek di dugg safara kon mbooloo moomu yàlla di seedeel ne ci dëgg la ñu nekk ñu baax lañ loolu ñaari jàngin lañ ci jàng ba ci jiitu islaam seedeel na banu israil ne am na ci ñoom mbooloo mu baax ñu nekk ci dëgg waaye kañ la ñu nekkoon ci dëgg mooy balaa muhammad ñëw bi yàlla yónnee muhammad amatul kenn kuy nekk nasaraan wala nga nekk yahud wala nga nekk foo mën a nekk lu dul nga nekk ci mbooloowu Seydina Muhammad pour yàlla nangul la ne yaa ngi ci dëgg wala pour yàlla nangul na di nga texe ëllëg beneen jàng buñ ciy jàng mooy laa yajrimannakum sanaanu qawmin ala an la taadilu bañ ay nit bu mu tax ngeen maandu bañ ay nit léeg-léeg ci ñun julli di sax di nga bañ benn kuréel rek kuréelu mbooloo wala ay nit wala nga bañ benn nit wala nga bañ ñoom diw rek luñ defati baaxul luñ defati ci àdduna baaxul ndax ñoom rek da nga leen a bañ loolu loolu du maanute ab jullit yàlla nee na loo bañ bañ bañ bañ bañ ay nit bu mu tere nga nekk nga wax dëgg buñ defee lu baax waxal ñu baax lañ kon yàlla seedeel na banu Israil ne am na ci ñoom waxul ñëpp ñoo baax waaye am na ci ñoom mbooloo moo xam ne ñu baax lañu woon te aaya yaa ngi ñëw sunu kanam léegi ñu jàng ko Euh, lan moo tax ne kenn mënatula baax ginnaaw ba yàlla yónnee Muhammad kenn mënatula nekk ci dëgg ginnaaw ba alxuraan ñëwee mooy bépp sharia bépp dundin yàlla daf ko effacé bu dul islaam su fekkente ne ñëpp dàq nañu seenu mbaax ne kenn mënatul baax ci àdduna lu dul ko dund sharia yonent yàlla muhammad kon ñi nekk ci sharia muhammad lan moo leen war kon ñi ne ñoom gëm nañu muhammad kon lu leen war hmm? hmm? topp ko naka lañ mun a nekkee ay jullit te duñu dund islaam duñu dund yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam lim fi indi woon naka lañ mun a loo defee lool naka lañ mun a topp ci ginnaaw yi ñeneen topp ay mbooloo topp ci topp ci koo wax ñu ne diw nangam ñu sori li yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam indi looloo tax mbooloo yi li muy bari bari bari da ngay gis nit ñi baaxuñu wala nanguwu leen loolu bu leen dem ci yeneen mbooloo rek ñëw leen ci lislaam ñaareel bi lañ ciy jëlee mooy iza anama allahu ala al abdi aw umma nicma summa lam yashkuruha tuslabu minhum ahabba am kariha iza anama allahu ala al abd ala abdin yàlla bu defalee ab jaam xéewal wala yàlla jafal benn mbooloo xéewal umma wala yàlla defal benn dëkk xéewal wala yàlla defal ay nit xéewal wala yàlla defal benn nit xéewal wala yàlla defal kër xéewal ay kër googu day lam yashkuruha santuñu xéewal googu yàlla da koy nangu yàlla day nangu xéewal da koy foqarti lu tax wa amma bi ni'mati rabbik fahaddis i'malu ala daawuda shukran waaye waaye mel leen ne waa kër daawuda waaye dee leen jëf jëfe sant yàlla bu la mayee santal yàlla mbokk yi te xéewal gi ñu yàlla di may dafa bëri gis nga tey nit ñi li ñuy bari bari ay yëngatu ak li ñuy góorgóorlu ci seeni mbir bopp am na yoo xam ne bu ko yàlla téyee ci àdduna bi rek ñëpp yëg ko xoolal fii may wax ak yéen États-Unis Californie moo ngi lakk depuis ñaata fan kenn mënu ko fay depuis ñaata fan bu fekkee yéen a ngi suivre actualité kenn mënu ko fay lu nekk dugg nañ ci yëf yaa ngi tàkk kenn mënu koo fay gis nga kon yàlla kattanam ak dooleem xejul ci ay nit léeg-léeg mu tàng démb benn waaye woo na ma Angleterre mu ne ma fii sala tàngaay bi fi nekk kenn mënu ko wàññi. mu ne ma dafa tàng ba ay nit di dee léeg-léeg nga dégg ñu ne dafa sedd ba ay nit dee li ñuy bëri ay jumtukaayu àdduna yépp li ñuy bëri mën a toppatoo lépp léeg-léeg sunu borom subhanahu wa taala ci matériel yooyu ñuy toppatoo dootul amati njëriñ léeg-léeg nga gis koo xam ne néegam dafa tàng mu indi ventilateur dem jënd ventilateur vingt mille francs wala nangam trente mille ñëw teg appareil bi day daw di ko ëpp ba ci yàgg dootul sentir ngelaw lu sedd lu muy sentir ah ngelaw lu tàng allahu akbar kon ndeke xéewal yooyu ci loxo yàlla la nekk yàlla bu mayee nit xéewal wala mu may mbooloo xéewal wala mu may dëkk xéewal dëkk boobu bu ñu santu yàlla yàlla daf koy nangu moo xam neex na leen moo xam ne naqari na leen su la neexee bu la naqaree yàlla bu la mayee santoo ko dina ko nangu dina ko nangu ci nii wala mu nangu ko ci nee moo tax xéewalu yàlla li ci jaadu rek mooy sant wa kaa inun man kaana nag ak ku mu mën a doon nag ak ñu mu mën a doon su leen yàlla mayee sant ñu ko yàlla da koy nangu tey loolu mooy li ñu dal ñun nit lislaam yi kunna ru'aatul ghanam dañ doon sàmm ay gëléem islaam daal di ñëw def ñu ñuy sàmm ay xeet ba ñu weddee lislaam yàlla def yeneen xeet yi di nu sàmm bi ngeen li mu bëgg a xoola avant lislaam di ñëw arab yi dañ doon sàmm ay gëléem ba lislaam ñëwee ci ñoom yàlla may leen ñuy sàmm xeet yi ba ñu sàmmee lislaam yàlla def yeneen xeet yi di leen sàmm lislaam mooy teral nit nit bu amee valeur nit bu amee jëmm nit buñ ko wegee nit bu amee personnalité rek gis nga même fii ci Sénégal soo yoree benn comportement islamique rek ku lay nuyu ñaata loxo la lay jox ah ñaari loxo lu nit ngand ngand ngand ngand di tox cigarette séen la nu muy def def koy nëbb démb dama bett benn waaye muy jox tuuti mu dee tuuti mu dee parce que ci moto la nekkoon ci moto gis naa ko mu taxaw xam naa ko xam na ma bugguma koo romb mais man xaw ma woon ne day tox parce que ci ginnaawam laa nekk xaw ma woon ne day tox bugguma traversé tali bi kon dina ma gis ma ñëw nii naa ngi ci ginnaawam moo ngi taxaw ma tolloog moom ne ko asalaamualeykum mais cigarette bi boo gisee ni mu ko def mais man tamit dama ko jéem a won ginnaaw pour ma ne ko ma bëgg ko xamal sama xel ne gisuma ko gisuma cigarette bi waaye gis naa ko mais boo gisee ni mu ko def tuuti mu dee ak moto bi waaw léegi nit soo nit nga rus ko ba bëggoo gis mu def mu gis sa lu bon te nit rek la yàlla nag loolu mooy suñ problème nga ragal nit wala nga rus nit wala nga ormal nit ba bëggoo def lu bon ci kanamam dégg naa benn waaye dafa takk jabar dañ ko may jabar guddi jot mu war koo céetal mu dugg ci néeg bi simmee ko ba pare mu ne nii ci kaw lal bi rek mu seen photo sëriñ bi moom moo fa defoon photo sëriñ bi rek mu ne i subhanallah subhanallah sëriñ baa ngi jéggulu wa bu ñëw dëpp photo sëriñ bi ma ne xoolal gi nee na sëñ baa ngi koy gis quoi allahu akbar xoolal kooku respecté kooku ba respecté photoom ah léegi yàlla nag ayna allah loolooy sunu problème ayna allah bu njëkk ba boo nee nit ayna allah lépp baax ayna allah dañ ko doon wax nit yépp réglé abdullah ibnu omar dafa génn ci àll bi di sàmm bala muy doxantu sàmmul woon sax da doon doxantu mook lenn ci ay àndandoom biñ doxee ba sonn ñu seen benn sàmmkat Abdullah ibn Omar ne kaay leen dem ci sàmm bee ñu seetlu ko ñëw ba ci sàmm bi ñu ne ko ñun de dañoo génnoon waaye dañoo ñëw ba fii ci àll bi ñu xiif amuñu lu ñu lekk nu bëgg xar yi nga yor nga jaay ñu ci benn ñu rey ko lekk ñu jox la xaalis bi Abdullah ibn Omar ne leen man xar yi moom ma sàmmkat bi ne leen man moom ma xar yi dañ ma koo sàmmloo Ablaye Nomar ne ko soo demee nga ne borom sàmm borom xar yi till yi ñoo song xar boobu lekk ko till yi allahu akbar till yi ñoo ko song lekk sàmmkat bi daan ne Ablaye Nomar ayna allah ana yàlla Ablaye ibn Omar téye sikki moom ñaari loxo di yuux ci biir àll bi di daw naan qaala raa'i ayna allah sàmmkat bi nee na ana yàlla sàmmkat bi nee na ana yàlla ñun tey ana yàlla reglewul suñu dara ana yàlla wala lu nu neex la ñuy def lu nu neex waaw lu nu neex lu nu neex jalgati guddeeg bëccëg def lu la neex guddeeg bëccëg lekk lu la neex dem fu la neex suñ la nee yàlla nga naan waaye ban yàlla waaye yow ban yàlla yooyu ngay loolu ngi loolu ngay dégg tey Abdullah ibn Omar bi mu ñibbisee ci dëkk bi dafa laajte sàmmkat bi fu mu dëkk ñu wax ko mu laajte borom xar yi fu mu dëkk ñu wax ko mu dem jënd xar yépp daa dem ci jaam bi jënd ko daal di koy may xar yi libéré ko ne ko goreel naa la ci kàttanu yàlla yow ku mel ne yow waru nekk sàmmkat loolu moo lay wan ne umma bi dañoo yoroon ñëpp ñëpp baax umma bi dañoo yoroon ñëpp ñaari nit kenn ki dafa jaay tool bi kenn ki jënd tool bi ki jënd tool bi di liggéey tool bi mu fekk ci biir tool bi benn waxande or valise bu weñ mu ngi fees dell ak or bu muy bay di ruuj illeer bi ne këng ci valise bi fekk dañ kaa suul mu ne waaw mu dóoraat mu ne këng na xeer bi nekk fii mu gas ndeke valise la mu sëlli ko ubbi muy or mu tëj daal ne subhanallah lii de ki ma jaay daf koo fàtte mu gàddu valise bi jëm ci ki mu ko jaay ki ko jaayoon tool bi mu ñëw fëgg kooku ubbi mu ne ko du yaa ma jaayoon tool bi mu ne waaw mu ne lii yaa ko moom xam naa da nga kaa fàtte woon ci tool bi jëlal waa ji ubbi muy or waa ji ub subhanallah moom ma ko de jëlal jëlal moom ma ko mu ne ko du ma ko jël ndax yaa ma jaay tool bi te ci tool bi laa ko fekk mu ne ko sawaay tool laa la jaay jaayu ma la or jëlal bu ma indi problème ñu koy buuma xante ñoom ñaar mbokk jullit yi ñaar ñooñu bu doon Sénégal lañ nekk ku nekk fi nga toog laaj naa la laaj bi bu doon loolu ci Sénégal la xew lu ngeen xam ndeysaan ay ay mbokk yi loolu bu doon ñun la fii ñoom ñaar ñuy buuxante valise bi di buuxante valise bi di buuxante valise bi ba ñu dem ci juge bi ba ñu dem tribunal ci juge bi ñu dem ci xaadi bi attekat bi ku nekk ne moom ma ko waaye ñu ne du ma ko delloo ki ne du dugg sama kër ba ñu buubu leen ñoom ñaar yóbbu leen justice bi ñu demee ku nekk ci ñoom xaadi bi daal lay déglu yow foo jëlee lii mu ne kii moom a jaay tool may bay tool bi gis ci lii may yóbbu ko mu ne du ko jël parce que man moom ma ko mu ne yow mu ne tool laa ko jaay jaayu ma ko lii ba ma koy jaay jaayu ma ko lii tool laa ko jaay kon du ko indi sama kër mukk ndax xaw ma fu mu ko jëlee bëgg ma koo bëgg ma koo yen allahu akbar juge bi daal di jommi ne leen yéen ñaar kan moo ci am doom bu góor kenn ki ne man mu ne keneen ki yow loo am mu ne doom bu jigéen mu laaj leen ñaata at lañ am ñu wax ko mu ne kon mën nañoo sëy ñu ne waaw mu ne indi leen ñoom ñaar ñu maye leen ñu def valise bi muy seen can gis nga buur boobu tamit mu ne nee na noonu teg leen nii moomu leen ko dem leen allah suñu benn papa dafa yar kuyam ba tabaski bëgg a jot benn waaye ne ko trif sàcc góor gi di wër ba sonn gisul kuy mi benn bis mu jóge marché bu bees di ñëw rek gis waa ji takk ci buum rek mu wàcc ñëw poña waa ji ñoom ñaar ñu teeri police Guédiawaye bii bii ngeen di gis bii biñ ñëwee ñu ne leen lan la góor gi ne maa moom xar mi waa ji ne maa moom xar mi ñu ne leen teg leen ko nee ngeen dem góor gi suba nga indi ngooñ yow ginnaaw suba nga indi ngooñ góor gi nee na leen di ma koy yóbbu ngooñ mardi demuma waa ji indi ngooñ mercredi ma koy yóbbu ngooñ jeudi demuma waa ji indi ngooñ vendredi ma ñëw ñu ne ma ana xar mi ana xar mi daf fi la nekkoon ana tumu mu ne waay lii loolu ñu ne waa ñu ne xar bi ana yéen ana xar bi eh xar bi yeewoon fi anamu ah góor gi xar mi gisuñu ko de góor gi ñibbisi ak ngooñam ak ay rongoñam police bii ngeen di gis bii ngeen di seen loolu mooy Sénégal keneen ki ay million sàcc ci benn société ay million la ilaha illallah ay million la sàcc dem xaaj jox jabaram lenn li ne ko defal dépasse lenn li kenn xamul fu da ko gasul ñu jàpp ko ci benn société boo xam ne bëggumaa wax tur bi ni yaayam ñëw fekk ko ci kaso bi ne ko ana xaalis bi yaa ko jël mu ne maa ko jël ana lenn li mu ne jox naa ko soxna si muy dépasse ba ba may génn xam nga ne loolu bëri na mu ne ana leneen li mu ne am na lu ma denc fenn mu ne ko jox ma ci 10 millions mu ne ko demal place sàngam nga boo demee nga génn ci 10 millions li ci des nga lem foofu dencal ma ni yaay ji daal di jël 10 millions yi def ko ci malet ñi di laajte ba xam juge bi ñuy jox këyit yi mu ñëw heure midi fekk ñu ngi waaj a dem pause demaguñu waaye ñu ngi waaj a dem ci bureau waaja mu fëgg secrétaire bi ubbi ko mu ne juge diw laa soxla mu ne ko da nga am rendez-vous mu ne déedéet ah mu ne kon mënu laa recevoir rek far yàlla def juge bi ubbi bunt bi doon wax ak secrétaire bi rek gis waay mu ne ko euh, diw yow laa soxla woon mu ne ko pour lan la mu ne ko diw mu ne ko non non non non mu ne ko c'est que dama la soxla woon lii ki- ki indi nekk fii mu ne waaw waaw kaay kaay kaay mu ne kaay mu ne ni saag bi waaw dama la soxla woon xam nga ki ki rek mu ne ko kaay kaay kaay mu dugg rek mu caabi mu dugg xam nga verre yooyu yi nga xam ne da ngay xëcc affaire yi daal di ubbeeku ne virr rek mu xëcc affaire yi wàcc tëju dafa ubbeeku woon mu timmi verre yi teg mu ne lan la mu ne dama indi woon 10 millions pour boo ko buñ koy gisee bu taxawee nga dimbali ñu ci mu ne ko indi tegal fi mu teg mu ne ko bu ko kenn yëg demal waaye daal di génn ñibbi zulu gisement bi ñu mel ne ku sàcc ñaar dërëm moo fa teew ku sàcc ñaar dërëm loolu mooy Sénégal moo daal bon kuñ fi yoreel perte nga kuñ jël sa alal perte nga ku ñu liggéeyloo bañ laa fay perte nga kenn du àtte dëgg soo ko waxee ne gars yi naan da nga leen a xaw ma offensé xaw ma la ñuy wax xaw ma mais ñun ñu ngi koy dund fii ñu ngi koy gis ñaata yoon ñu ngi koy gis fii nii nii jëxëral di teg suñu bët loolu koy nekkul lu ñuy fen te yi ñoo gën a ndaw yuy xew yi ñoo gën a ndaw yu xew ci réew mi mu nga kon bu yeboo rek nu góorgóorlu topp suñu boroom topp suñu diine jàpp suñu alxuraan roy suñu yonent pour ñu mën a am njëriñu àdduna ak àllaaxira mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala tafaddal iqra lana al ayat taal hina ñu bàyyi ustaas mu jàngal ñu aaya yi insha allah biznillah wa min qawmi musa ummatun yad'una bilhaq wa bihi ya'dilun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقدرناهم اثني عشرة أسباتا عمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء
fiik jazakallahu xeyran yal na yàlla faye ñu la yiw sunu borom nee na wa min qawmi Muusa am na ca nitu Muusa ya Muusa bi ko yàlla yónnee ci bani Israil am na ci ñoom ummatun benn mbooloo boo xam ne yahduuna bil haqq allahu akbar dañuy jubal ci dëgg yahduuna anfusahum wa gayrihim bi diinil haqq ñoom dañoo jub waaye kat dañuy jubal ñeneen ñañu àndal ci dëgg nekke kon gis nga mbooloo yi du ñëpp ñooy bon chaque jour mbooloo moo gis am na ñu baax comme ni ngay gisee mbooloo am ñu bon moo tax c'est dangereux nga gis benn mbooloo rek accuser leen ñoom ñëpp ne baaxuñ banu Israaïl a ngi nii li ñuy doy waar yépp terewul yàlla mu ne wa min qawmi Muusa umma yahduuna bilxaq wa bihi yaadiluun am na ci ñoom ñoo xam ne dañuy dañoo jub ci dëgg waaye dañoo dañuy jubalaate ci dëgg waaye yemuñ ci loolu ñoom ci seen bopp ci diine ji nga xam ne moom la ñuy dund dañ cee maandu jub xocc fi qadaa'ihim ci seeni atte dañoo jub wa hukamihim seeni atte ala anfusihim seen biir dañoo jub yàlla misaal leen ne insaafan wa adlan la jawran wala zulman yàlla seedeel leen ne ñoom dañoo maandu dañoo jub dënguñu te duñu ay tooñkat kon gis ngeen banu Israil am na ci ñu baax waaye kañ la lii kañ la woon mooy balaa sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam feeñ ba mu feeñee seen sharia folli nañu ko mënatuñoo baax ci sharia boobu ci sharia bi yàlla indi jox ko yonente yàlla muhammad dong ci lañ mën a baaxee sunu borom nee na wa qatta'naahum séddale naa leen ay qasamnaahum maa leen xaaj séddale leen isnatay asharata asbaat juróom ñaar fukki fukki fukk ak ñaar ay qabail ay xeet ay sët dañoo dox ba mar naan comme tey ñun nii nu maree nii nu maree ndox nga xam ne robinet yi amul ndox asamaan wàccewul ndox tey ci ndakaaru fii vingt-et-unième siècle ci biir Dakar ci biir capitalu Sénégal nga demee ne jaadu na ñu toog fi ay ñaata weer amuñu ndox ñaata ñu naan 4 mois ñu naan 5 mois ñu naan 6 mois gis naa ay jigéen naan juróom benn weer amuñu ndox di mars takk ay sagar yi xonq ci biir Ndakaaru est-ce que loolu jaadu na ba pare ñu ne pays bi dafa émergent dañoo bëgg mu émergent dañuy naax suñu bopp rek ba ñu doxee ci àll bi ba mar naan ndeysaan banu Israil xool leen leen lu leen yàlla defaloon suñu bëggee naan yàlla may leen ndox bu ñu bëggee lekk lekk yi jóge aljanna taabal yi wàcc ñu lekk bu ñu doxee bu naaj bi tàngee yàlla indi as niir yi mu niiral leen subhanallah xool xéewal yooyu nu mu graawee ñu am noon bu tudd firawna di leen rey di leen dóor guddeeg bëccëg yàlla yóbbu ko ba ci géej gi labal ko ñuy gis nii jàkkaarloo ak moom yéen lan leen yàlla desalati ah waaye terewul ñu kàccoore saay-saaye parce que gis nga nit ay nit suñu leen waxee ne yéen da ngeen di dugg àjjana rek te kenn du leen régler rek nit ñi dañuy dëng looloo dëngal day waa Ndakaar waa Sénégal looloo leen dëngal parce que dañ leen assuré àjjana leen leen ñëpp àjjana ngeen jëm comme loolu lañ leen wax te gëm nañ ñi leen ko wax moo tax du ñu góorgóorlu ci jaamu yàlla da ngay gis ku fanaan soirée ñëw tëdd fajar boo ko nee mu ne la ah ñun li ñu doon def def nañ ko ba pare yéen yéen fi nekk di julli ay julli yéen yéen a ko mooma ñun àjjana dugg nañ ba pare ba ñu doxee ba sonn ñu mar naan ñu ne Moussa dañoo bëgg naan xam nga yàlla hakim xabiir waaye hakim yàlla dafa xereñ parce que dafa xam xoolal mbooloo moo xam ne la topp Moussa isnatay ashara asbat soo leen doon diviser danañ dem douze nations douze nations wala douze xeet ñu ko topp ñooñu tey bu ñu leen utaloon benn robinet ne naan leen ci lu ngeen di yaakaar ñaata nit ñooy dee tey ñooñu ku leen ubbiloon benn bunt ne jaar leen ci bunt bi ñaata nit ñooy dee waaye yàlla wax yu Muusa ca suratul baqara yàlla mu ngi wax wa is istasqa Muusa li qawmihi fa qul nadrib bi asaakal xajara fan fajarat waaye boobu la yàlla utilisé foofu ah fan fajarat fii fan bajasat gis nga yàlla ne Moussa comme ñii dañoo mar naan jëlal yat wi nga yor allah moo tax yatu Moussa bi du woon yatu kese de dégg naa nag mu ngi fii mu ngi gunaas ah ci benn góor dégg naa ndeysaan benn mbokk ma tafsir ba pare xissa Moussa ci koor gi ma wax ci yetu Moussa ñu pare booy bi ne asalaamaaleykum oustaz yetu Moussa bi pourtant mu ngi fii de ma ne ko fan mu ne ma fii ci CFA Gunaas ma ne ko abon mu ne waaw ca suba sa mu ànd ak mu ànd ak sëtu ki ko yore mu ñëw ne ma kii la maamam yor yat bi ma ne ko sa maam moo ko yor mu ne waaw ma ne ko gis nga yat bi mu ne gis naa ko kay ma ne ko anamu mu ne mu ngi mu laxas ba mu rafet denc ko ci biir waxandeem ma ne ko am nga yatu Moussa mënut a nekk ci waxande ah Gunaas amul séeréer ah kon ne ci tukulóor yi la kon bu dee gunaas de wax dëgg yàlla gunaas di ñëw foofu mooy tukulóor yi waaye est-ce que tukulóor a ko yor loolu mooy wax bi day na waar de allahu akbar Sénégal day na waar de Sénégal lu ne am na fi fii lépp a ngi fi am nañ safa ak marwa am nañ ndoxum zam-zam ah am nañ yetu Moussa am nañu arafaat la ilaha illallah ah fauteuil xudar de ah allahu akbar am nañ baytul maamur am nañ sijratul muntaha la ilaha illallah ay way ba ñu maree naan yàlla mu ne Moussa jëlal sa yat wi ndeysaan moo tax Moussa bi mu doxee ci naaj wa ba yàlla woo ko ne ko Moussa wa maa tilka bi yaminika ya Moussa Moussa loo yoree mu ne ya asaaya atawakkau biha sama yàlla dama ci sukkandiku yàlla mu ne ko am na leneen lu ci nekk loo ko xamul yàlla ne ko sànnil mu sànni la feeñ ca yat ba waaye Moussa mu ne yàlla waliya fiha maaribun uxra am naa yeneen mbir yu nekk ci yat bi yu ma koy doyee ndeysaan borom xam-xam yi nee nañ Moussa bu tëddoon di nelaw ci àll bi day samp yat bi yat bi di ko garde kenn du ko jege yat bi koy garde mu ne Moussa jëlal yat bi nga dóor ko ci montagne bi comme ni nga ko dóore woon ci géej gi Moussa daal di koy dóor xeer bi daal di exploser daal di génne fukki bën bën ak ñaar yu bokkul yu wuute yu sorante moo tax ca baqara yàlla mu ne wa is istasqa Moussa li qawmi Moussa ba ko nitam yi sàkkoo nandalu nit yi ñoo ko ne dañoo mar bëgg nañu naan te àll bi amul ndox yàlla ne ko jëlal yat wi dóor ko ci xeer wi mu dóor ko fan fajarat mu daal di exploser ñaata minhu isnata asara aynan fukki bët ndox ak ñaar daal di feeñ ay bën bënu ndox yoo xam ne dafa sorante ci montagne bi loolu lan mooy hikma yàlla ci loolu gis nga tey yàlla mu ne fii wa qatta'naahum dama leen a séddale ay qatta'naahum ma diviser leen isnatay ashara asbaat fukki sët ak ñaar xeet bu nekk giir gu nekk ma ni leen nañu ran taxaw ci benn bën bënu robinet ñoom dong ñoom ñoo fay naanee pour ñu gën a dégg misaal bi bu doon Sénégal la xew ñun ñëpp ñu ànd ak Moussa yàlla mu ne ana tukulóor yi ñu ne ñoo ngi nii mu ne taxaw leen ne la ngeen ran yéen ci robinet ba la ngeen di naane numéro un ana séeréer yi ñu ne ñoo ngi nii mu ne jël leen numéro deux ana joolaa yi jël leen trois ana njaago yi jël leen quatre ana ana noonu la leen def xeet yi xeet bu nekk ba ñu nekk fukki xeet ak ñaar ku nekk ci xeet yi nga bokk ci bën bënu ndox boobu nga taxaw pour naan pour raj-rajloo ak reyante bañ a am parce que ku nekk am nga foo bokk borom bi nee na noonu laa leen xaajee ma def leen isnatay asara asbaat umaman ma def leen ñu nekk fukki xeet ak ñaar yoo xamante ne ku nekk di nga mën a naan ci jàmm kon xoolal ñii li leen yàlla defal dox ci àll ba mar naan damaa bëgg a naan yàlla gi indi ndox dox ci àll ba sonn damaa bëgg a lekk yàlla indi lekk dox ci àll ba sonn naaj bi dafa tàng yàlla indi ker tiiñ leen lu ñu bëgg rek yàlla defal leen banu Israël waaye gis nga lu ñu fay yàlla li tax mooy yombal gi ñu leen yombal aljanna moo tax ñu dem ba ne nahnu abnaullah ñun ay doomi yàlla lañ ñun yàlla ñu jur yàlla ay sunu baay waaw yemuñu foo sax dañu ne ñoom ñooy dugg àjjana kenn du dugg àjjana wa qaalu lan yadxulul janna illa man kaana huudan kenn dugg àjjana lu dul ñun wala nasaraan ndeysaan dañu laaj benn borom xam-xam ñaari yahud benn yahud ak benn nasaraan di werante ñu ñëw ci benn jullit ñu ne ko àtte ñu mu ne lu seen problème yahud bu mu ne man dama ko ne ñun ñooy dugg àjjana nasaraan bi ne ko dama ko ne nun nooy dugg àjjana kenn du dugg àjjana jullit bi ne leen ah man de xaw ma ci dara waaye yahud bu duggee ñun jullit danañ dugg nasaraan bu duggee ñun jullit di danañ dugg gaa yi ne ko lu tax mu ne ndax ñun gëm nañ Moussa ak Isa wala waaye yéen seen problème mooy ndax yéen ñun bu nu duggee yéen di ngeen dugg allahu akbar allahu akbar démb damay liir ba yegsi ci benn benn wax bu ma yéem benn borom xam-xam benn anglais daf ko ne yéen jullit ñi da ngeen a bëri problème mu ne ko ban problème la ñu mu ne ko la moo tax ngeen ne góor du nuy jigéen gis ngeen de la moo tax ngeen ne góor du nuy jigéen mu ne ko loolu koy yomb na àtte loolu koy yomb na ñu wax leen yéen Angleterre am ngeen loi mu ne waaw ban loi la mu ne ko buur bu jigéen bi ñaata nit ñoo koy nuyu mu ne ko non kooku moom loi bi dafa wax ne ñi koy nuyu mooy ay quelque nit ñoo koy nuyu nekkul peuple bi yëpp a koy nuyu mais ci biir peuple bi am na nit ñoo xam ne danañ nuyu buur bi mu ne ko ñun tamit ci islam noonu la ci lislaam jigéen ci ñun dafa am ay quelque nit yu koy nuyu mu ne ko ñaata lañ mu ne ko bàyyi d'accord ngeen doom ah maam sët nijaay magu baay rakku baay ñëw leen ah magam borom këram ñëw leen ah wax naa rakam ah nijaayam fukki nit ak juróom yi ñooy nuyu jigéen waa ñu ne ko yow yow hi wax nga dëgg de ah ah dëgg dëgg mu ne ko waa yéen la moo tax yéen Angleterre yéen fukki nit ñooy nuyu buur bi mu ne ko presque buur la mu ne ko ñun tamit ci lislaam jigéen ñëpp ay buur lañ moo tax fukki nit ak juróom yi ñoo leen di nuyu aka neexoon jigéen ñi xam loolu ah ndeysaan di ko lislaam dafa def jigéen buur ba tànnal ko ku koy ku mu koy ku muy jox loxo nekkul warul jox ñoxul lépp ah xoola buuru Angleterre ren Angleterre ndekki du ñëpp koy nuyu allah mu tax chaque jour gis nga lislaam boo ko jàngee rek noppalu keneen ki dafa am gan indil ko sàngara ak raisin indi ko raisin indi ko raisin waa ji di lekk ba jàng ne yéen julli ñi da ngeen a bëri problème mu ne luy problématique mu ne ko yéen a ngi araamal sàngara di lekk raisin loolu nu mu nekkee te xam ngeen ne sàngara raisin lañ koy defaree waa ji ne ko loolu kay yomb naa tontu mu ne ko loolu ban tontu la mu ne ko ana sa soxna mu ne moo ngi ci biir mu ne na ñëw ana sa doom bu jigéen na ñëw mu ne waaw na ñëw mu ne ko sa doom bu jigéen bi ku ko jur mu ne ko mu gis sama soxnaa ngi ni mu ne ko lu tax kii dagan ci yow kii daganul ci yow mu ne ah kii maa ko jur mu ne looloo tax tamit kii dagan ci ñun kii daganul ci ñun sàngara bi daganul ci ñun fu mu génne mu ne ko ci raisin bi mu ne ko kii moo dagan ci ñun kii daganul ci yow kii moo dagan ci yow kii daganul ci yow ndeysaan gis nga diine bi ni mu leeree boo ko jàngee rek noppalu da ngay xam ne l'islam mooy dëgg moo tax ku mu waxal rek soo gisee tey problème mu terrorisme nangam nangam ñuy diaboliser l'islam di indi ay histoire di indi ay guerre parce que xam na ne bu dëkk bi nee tekk rek l'islam day dem su dëkk bi nee tekk ñëpp di dem ak seen xel dara benn biir wi amul l'islam day détruire àdduna bi day lépp lay jël da koy jël da koy nangu fal force suñ ci waaraatee suñ ci waaraatewut loolu moo tax ñu indi ay bruit di diaboliser l'islam di yàq parce que bëgguñu nit ñi gëstu l'islam parce que buñ ko ku ko gis rek tuub koo mës a gis mu gàdd ngànnaayam ne damay xeex l'islam dafa dem ba caag mu daal di tekki seen tiiram teg teg armam daal di ne jébbalu naa xoolal Guantanamo soldats américains yi doon garder jullit ñi dañoo tuub ñoom ñëpp biñ ñibbee wala ñëpp dañoo tuub kenn wàll gi yëpp tey tuub nañ loolu moo leen indil problème nag ndeysaan allahu akbar ñëpp dañuy tuub xoola problème Charlie Hebdo bi mu amee France ba tey tubaab yi dañuy dugg ci l'islam comme ay weñ yuy dugg ci ndox di tuub guddeeg bëccëg l'islam kenn mënu ko téye maa ngi yor fii sama portable benn labbe buy ñaxtu labbe bi dafa doon ñaxtu am nga ko envoyé nañ la ko labbe bi dafa mer mu ne xool xale yu ndaw yi nekk sama kanam ñii ñëpp dinañ tuub yi ñii ñëpp dinañ tuub mu ne tey Bruxelles France fan mu ne xale yi ëpp li ñu juddu ñëpp Muhammad lañ tudd moo ngi nii sam portable mu ngi fii mu ne ah seetaan nga ko gis nga loolu loolu fan la France la voilà loolu mooy dëgg bi lu tax est-ce que jullit dañoo jógee Sénégal dem France di waaraate yi ñoo dem Angleterre waaraate non dëgg la dëgg la nit mënta téye te yàlla ni mu bindee nit mooy nit ki bu gisee dëgg da koy jël bu fekkee nar na taxi ëllëg yowmal qiyaamati sunu borom nee na maa leen dagg ay xaaj ñu nekk fukki kuréel ak ñaar mu ne wa aw xay naa ma daa di dee ma wax yu ilaa Muusa ci Muusa ma ni ko istisqaahu qawmuhu sa nit ñi buñ ñëwetee ci yow ne dañoo mar bul fi nekk di sonn di uti ay teen ak di uti ay baag anid rib dóoral bi asaaka sa yat wi alxajara doj wi soo ko defee rek fan bajasat minhu dana ball explose daal di toj ci xeer wi isnata asara aynan fukki bët ak ñaaru ndox dana génn mel ni ay robinet yu ñu samp xeet bu ci nekk daal di ran dem ca robineem naan su loola soo dóoree xeet yat yat wi boo ko dóoree ci xeer wi ba xeer wi ball génne fukki bunt ak ñaari bët su boobaa kat qad alima dana xam kullu unaasin bépp xeet bépp nit mashrabahum naan waayam gis nga lii de soo ko defee rek xeer bu nekk man yàlla maa def ci ñoom danañ jóg ran ci seen côté te duñ jaxasoo xeet bu nekk qad alima dana xam kullu unaasin bépp nit bépp mbooloo bi nga àndal ci mbooloo mi dana xam mashrabahum naan waayam allahu akbar waaye yow ma ci defal leen loolu xéewal loolu mbokk yi xéewal la wala du xéewal yéen waa Sénégal te bu ngeen buggee ndox yéen di fay facture wala du ngeen fay ah yéen di fay de Moussa moom nii tamit daaw ñu fay facture ndeysaan te fu ñu dem kat ndox mi ñëw ñu maree naan rek yàlla ne Moussa dóoral bu ñu bëggee lekk asamaan wàcce man na ak salwa bu ñu bu ñu bu ñu sollee moo ngi nii di ñëw yàlla mu ne wa zallal naa ma keral alayhim ci ñoom alxamaama niir wa benn niir la yàlla déclenché woon mu topp leen jant bi du leen laal fu ñu toll dañuy am ker allahu akbar ñamoon nañ dara de yamuñ ci mu ne wa anzalna ma wàcc alayhim ci ñoom almanna wa salwa suppu kànje wala maafe domada wala maafe gerte wala biftek maanaam benn lekk la bu ànd ak soos mu mel ni nga ni salaat ak yàpp ndeysaan yaa ngi ne almanna wa salwa lekk bu ànd ak soosam chaque jour mu wàcc ci ay plate ay table jóge aljanna ñu lekk ba suur palaat yi wala table yi naawaat jëm kaw asamaan ñu nekk ci di lekk ba mu neex leen ñu ne Moussa Moussa ñëw taxaw ñu ne ko lan nasbir ala taamin waahid bis bu nekk mën naak sawlaa bis bu nekk ceebu soos dafa soof quoi il faut nga changer ñu plat quoi ñun vraiment instant nga gis benn célibataire benn kenn xamul nekk ci kër gi joxewul dépasse gorul yatul naan waaye waaye pas dëxin la ñuy reer a guddeeg ba il faut ñu changer dëxin bi quoi et yow boo bëggee changer dëxin dama nga liggéey allah du tax kër gi ñuy reere cere rek bis bu nekk cere guddi cere cere cere cere te yow xamoonu cere cere te ngaa lekk te noppi loolu moo dal banu Israël réew ba dof xoolal buur bu tol na yàlla di leen jox lekk ñu ne ko Moussa Moussa ne ah ñu ne ko lan nasbir ala taamin wa ud'u lana rabbak tool ñu yàlla ne ko lii bëggatuñ ko bu mu fi ñëwaat yàlla mu ne ah bëggatu leen loolu ñu ne ah mu ne leen ihbitu misran fa inna lakum ma saaltum dem leen Égypte wala ngeen dem benn côté misra ngeen di dëkk dem leen dëkk bu ngeen mën ngeen dem su ngeen demee foofu et puis bi ñu nee bëggatuñu lii sax bu ñu noppi woon yem foofu sax amaana yàlla changé plat indi la leen waaye ñoom ñoo proposé li ñu bëgg udoo lana rabbaka yuxrij lana mimma tunbitul ard waxal yàlla nañu indil loo xam ne ci suuf lay sax ku bëgg luy sax ci suuf nooy def allahu akbar gis nga ni ñu defee seen bopp ay pauvre mimma tunbitul ard ñu commencé de naan min baqliha wa qissaiha wa fuumiha wa adasiha wa basaliha yàlla soble lañ bëgg mbaa laaj mbaa karot mbaa nawe mbaa naajo mbaa suppome yooyu lañ bëgg yàlla mu ne ah bon léegi bëggatu leen yàpp ak soos allahu akbar yàlla mu ne wa duribat alayhimu zilla wal maskana wa baa'u bi ghadabin min allah ala mu ne ma teg seen kaw mer goo xam ne ni ma leen mere musuma ko mere xeet ma def leen ay pauvre ay miskin ñu torox ba yowmal xiyaamati moo tax baykat bu amul ngaan bu amul jumtukaay rek nekk pauvre parce que bay daa metti du ñëpp ko mën ñëpp baykat dëgg bu ci bëggee génn foog nga am jumtukaay foog nga am alal ah foog nga am ay surga foog nga am ay matériel pour nga génn ci parce que mbay dafa metti suuf si balaa nga koy defar ba mu lay delloo njëriñ mbokk yi coono la de waaye sunu borom moo leen ko defal ñoom xéewal goo xam ne kenn mënu koo natt bu ñu maree yàlla may leen ñu naan bu ñu sonnee yàlla keral leen bu ñu xiifee yàlla jox leen ñu lekk ba pare yàlla ne leen kulu lekk leen min at-tayyibaati ci dagan yi ma leen jox maa razaqnaakum yi ma leen wërsëgal ñu nekk ci ba mu nekk ñu ne lii naal bëggatuñ ko yàlla mu ne wa ma zalamuna tooñu ñu ma de walakin kaanu anfusahum yazlimun waaye seen bopp lañ tooñ tooñu ñu yàlla ku yàlla di defal xéewal ngay lekk ci xéewal yi ba caag nga ne bëggatuma koo tooñ sabab sabab moo tax balaa ngay bañ dara bàyyil ba nga am lu ko gën ba mu ñëw fekk si la dangaa nekk fenn di liggéey ñu lay fay cinquante mille balaa ngaa ne liggéey tuma bàyyil ba nga am salaire soixante quinze mille wala tukulóor dañuy wax ne lii ngu jungo lii ngu koy nga loxo bu ne lii ngu jungo ku nekk nappkat di dem ci dex yi di napp xam na lii may wax gis nga da ngay dem ci dex nga jàpp ngandum jën nga téye ko sa loxo bii moom mu leer na ne jàpp nga ko moo ngi nii waaye comme sa tànk moo nekk ci biir ban bi yenn saa yi nga dëgg jën bu gën a ngand bi nga jàpp sa loxo waaye bis boo reppee ba sànni bii nga téye ci sa loxo nga ne da ngay jël bii nga dëgg sa tànk mooy ñaar yëpp dem nañ gis nga jën bi nga dëgg tànk moo gën a dangereux pour nga jàpp ko fi boo naan nii mu mu ne parce que dafa di tax danaan fef dem yoonam nga perte ñaar yëpp loolu bi ma ko bi ma nekkee xale laa ko xam dex meew gi ñu demee di napp jën ak ak bëri jën yuy rëcc da ngay jàpp bu ndaw mu ne nii sa loxo xam nga moom moom jàpp nga ko am nga ko nga jàpp bu ko gën a ngande rek nga sànni boobu xamaguñu waaye bu mu ñu leeree da ngay gis ko ku dëgg benn gaa yi dëgg naa ñu ne taxawal bul buusee gaa yi ñëw ñëw ñu yorul dara ko ñëw nii la de waaye ba bala ñu koy miin fekk xaw nañoo dee moo tax ñu ne naan lii ngu koy nga loxo ɓurene lii ngu jungo li nga jàpp ci sa loxo moo wóor di mais li nga xam ne téye goo ko léegi yow nga sànni cinquante mille yi nga dem di taxawaalu ji nag nga wóor ba sonn amagoo nga ñëwaat ci waa ji nag waaw waaw waaw garaawul quoi léegi mën naa ko nam parce que la tax taage googu balaa càkkay balaa ngay sànni li bàyyil ba nga am dara nga doog cee téye mu dëgër nga doog a ñëw daal ne nangam ak nangam loolu moo wóor waaye banu Israël moom xéewali yàlla dafa leen dañ cee nekk ba mu neex leen rek ñu ne bëggatuñ wala yàlla mu ne wama zalamuna tooñu ñu ma nit day def bakkaar dafa ne yàlla la tooñ fekk tooñoo yàlla sa bopp nga tooñ wama zalamuna tooñu ñu ma walakin waaye kaanu nekk nañ anfusahum seen bopp yazlimuna tooñ seen bopp lañ tooñ tooñu ñu yàlla gis nga beneen fu ñu jaar ak yàlla yàlla dañ ko nettali mu ne wa is fàttalikul qiila lahum bañ leen waxee uskunu haadihi alqarya dem leen ngeen dëkk dëkk bii muy Palestine muy baytil maqdis dem leen ngeen dëkk fa wa kulu lekk leen minha ci dëkk bi haysu shi'tum ni mu leen neexee waaye bu ngeen di dugg ci dëkk bi wa qulu xitta wax leen sippiku bàkkaar wax leen yàlla jéggal nu te su ngeen di dugg wadduxulul baaba sujjadan jaar leen ci bunt bi te na ngeen sujjoot teg seen jë ci suuf su ngeen ko defee naxfir lakum dinañ leen jéggal xatiaatikum seeni bàkkaar yëpp di yàlla dina leen ko baal ba pare sana zidul muhsinin ñi rafetal ci yéen sax dugg gi ak niñ ko defee yàlla nee na dinaa leen fay allahu akbar lii kay leer na wala lii dafa am lu ci metti demal dëkk sàngam soo demee ci dëkk ba dëkkal foofu ah su ngeen di dugg ca dëkk ba waaye bu ngeen fa nekkee lekk leen nu mu leen neexee su ngeen di dem nag jaar leen ca bunt ba su ngeen di dugg ci bunt ba sujjóot leen wax leen yàlla baal ñu sunu bàkkaar li yomb na wala yombul waaye comme dañoo wowle dañoo dëgër bopp ay bandi lañ ñu daal di changé wax bi leen yàlla wax fa baddala allazina zalamu minhum qawlan gayra allazi qiila lahum borom bi mu ne fa baddala changé na allazina ñi nga xam ne zalamu ay tooñkat lañ minhum ci ñoom qawlan wax jama leen waxoon dugg leen ngeen jaar ci bunt bi su ngeen di dugg sujjóot leen ñu ñëw ba ci bunt bi lan lañ leen waxoon sujjóot leen lan lañ leen waxoon wa qulu xitta ñu naan lan xabba xinta ba pare ñu duggut arrière naan nii di arrière ak seen ginnaaw naan nii di darngu ba pare naan xabbatun fi shaar ñenn ñi naan xinta au lieu ñu wax li leen yàlla waxloo ñu dem wax leneen waaye aaya bi lu rëy lañ ciy jàng ñi benn wax la leen yàlla wax wax leen ñu changé ko yàlla alag leen ñun ñaata leen yàlla wax def leen ko ñu lànk yàlla na ne waqulu xitta ñu ne xinta xoola ni mu jegee xitta xinta ñeene habba fa baddala allazina zalamu qawlan minhum qawlan ca suratu baqara fa baddala allazina zalamu minhum qawlan gayra allazi qiila lahum fa anzalna alayhim rijzan min assamai bima kanu yafsiqun ci baqara fii fa baddala allazina zalamu minhum qawlan gayra allazi qiila lahum fa arsalna alayhim rijisan fale fa anzalna fii fa arsalna ba ñu changé wax ja dugg leen ngeen ne yàlla baal ñu sunu bàkkaar jéggal nu waaye bu ngeen dugg sujjóot leen ñoom ñu dugg di darngu waxuma sax raam nii ci kanam waaye wan yàlla ginnaaw di darngu naan nii xam ngeen darngu mooy kuy direct suuf di raam ba pare seen ginnaaw lañ ko defee bu ñuy dugg ci bunt bi ginnaaw lañ woon bunt bi ba pare ñu naan xinta borom bi nee na ba ñu changé wax ba fa arsalna ma yónni alayhim ci ñoom rijsan mbugal mina sama bu bàyyee ko ci asamaan direct laa leen buggal mayuma leen sax ba suba fële aaya bi yàlla mu ne fa anzalna ma wàcc alayhim ci ñoom rijzan minas sama gis nga ndax dafa am différence fa arsalna ak fa anzalna ah fa anzalna li ñu wàcce dañ ko yónni fa arsalna dañ ko ne demal ci ñoom diw direct mbugal leen benn la fa arsalna yónni na alayhim ci ñoom rijzan mbugal minas samaa'i bu bàyyi koo ci kaw asamaan gis nga kon yàlla moom yónni mbugal mi lu tax yow yàlla nga def loolu gis nga sabab bi baabaa ngoog la ñoo baa u sabab yi bi maa kaanu ca la ñu nekkoon yazlimuna di tooñ dañoo tooñ yàlla yàlla mbugal leen waaye lu ñu jàng mooy ñii sayid xawaa rahimullah day wax ne bu ngeen jàngee alquran bàyyi leen xel aaya fu mu jeexee aaya bii ñu jàng nii ak aaya bi ci digg bi ak aaya ba nekk ci kaw ba ca kaw borom bi ne ne walakin kaanu anfusahum seen bopp lañ tooñ ba ca digg bi mu ne sanazidul muhsinin bi ci suuf mu ne bi ma kaanu yazlimun ñee dañoo def bàkkaar dafa ne yàlla lañ tooñ fekk seen bopp lañ tooñ moo tax yàlla mbugal leen ñii ci digg bi dañoo def lu rafet yàlla sant leen def leen lu rafet su ngeen defee lu rafet ña ko def danaa leen fay kon lu kuy def lu rafet foo mun a nekk mbooloo moo mun a nekk kër goo mun a nekk yàlla da lay fay ñii ci suuf dañoo mooy yàlla dafa ne yàlla da leen di indil ti xéewal yàlla mbugal leen te benn wax lañ changé yàlla mbugal leen benn wax ñun nag ñaata lañ changé mbokk yi fa baddala allazina zalamu qawlan minhum qawlan ghayra allazi qila lahum ñi kat dañoo dañ leen a wax leen lii ñu wax leneen dañ leen wax wax leen laa ilaha illallah ñu ne laay laay la laa ñee yokk ci ala ñee naan ay ku nekk di ut sa façon laa ilaha illallah ah ku nekk ut sa façon laa ila laa ilaha il ala ala laa ilaha illallah ku nekk ut sa façon ah waxuma kenn nag waaye yéen xam ngeen ne lii may wax Sénégal ku nekk façon laa ilaaha illallaa nga am te bu ma wax di ngeen xam boobu ñu ko moom boo wax nga xam ñu ko moom ku nekk ut sa façon buggoo bokk ak sa morom fa baddala allazina zalamu qawlan gayra allazi qiila lahum fa baddala allazina zalamu minhum qawlan gayra allazi qiila lahum wax jamaleen wax wax leen ko ak ni ma leen wax duggee leen ñu dem changé loolu bañ ko defee lan moo leen dal fa arsal naa man yàlla ma yónni alayhim ci ñoom rijsan mbugal mbugal mi fu mu bàyyee ko mu ne minas sama ci kaw asamaan yow yàlla lu tax nga mbugal leen mu ne bi maa kaanu yazlimuna ndax dañoo nekk ay tooñkat tooñkat moom kuy tooñ mbugal rek lan yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko loolu moo doon dar su tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.